saalum di fa romb ku toll ni Alaayeb Laay di dem Siin te jaaruma ca moom ziyaara te mënumaa dem kër Alaayeb Laay Ñas ko ziyaara ñu fekk ma ca wéti Alaayeb Laay Ñas di ma màggal ci kanamam xoolal ñooñu ni ñu joxe wante woon cër ku ci ne ni nga formaane woon sa morom te yàlla tax lu ko waral yàlla lañ doon wut utuñu woon a at utuñu woon dara waaye tey yàlla jox na leen lépp xol yi yëpp yàlla jëf ànd tëri boo fa demee da loo xam ne nii sax ñoom ñaanuñ ko waaye ma nga fa jox na leen jox na leen nit ñi jox na leen àddina jox na leen daraja jox na leen xabul jox na leen lu ne kon nañ mbokk nañ ut yàlla nañ bëggante ngir yàlla nañ laayante biir ngir yàlla nañ sàmm suñu bokk gi ñu bokk diine ji sàmm bokk gi ñu bokk deret ak kóllëre yi sàmm dëkkandoo gi ndax àqi dëkkandoo dafa diis rafetal dëkkin wi ndax mooy suñ njëriñ mooy njëriñu kenn ku nekk ci ñun suñu mag ñu baax ñi kat jëloon nañ ñi yoon woo xam ne buñ ci jaaree rek du ñu mos a joo joo te du ñu mos am benn jafe-jafe ñoom lépp luy rafetal dëkkin wi wax nañ ni ko jàngal nañu kale yi ñu fi indi kal yi ak maame bi rek lañ ci jublu woon da ngay gis ku dajeeg ku sant ñun bi ñun ñu dajeeg faarin bi wax ko lu la neex te du mer te bu ko waxee mu mer boo fi la bàyyi turé léegi ñeme naa ko wax lu ma neex moom la ñu jaay ñoom it ñeme nañ maa wax lu ma neex loolu mag ñi ñoo ko fi bàyyi woon ngir bëgg dëkk gi rafet ak ànd gi ngir nit ñi di kaf di ree di bëggante ku ci nekk jàppee sa morom di sa bopp maame yi loolu doomi bàjjan doomi nijaay kal diggante séeréer tukulóor yooyu yëpp ràbbee nañ ko bi ngir dal am fi ak bëggante léegi nag nit ñi yooyu mag ñi tëraloon yëpp gannaaw boo xamee ne wax nañ ne li lislaam wax ci bennoo gi yëpp jàngal ñi ko appliqué ko ñu teg ci suñu gis nañ ñoom lañ bëggante woon gis nañ lañ yéeneewante woon jàmm leen ak mbokk jaraloon di leen diine jaraloon leen dëkk dëkkuñ ci ba rafet da jaraloon mbokk mu am cër ñu yéene la loolu dañ ci delluwaat dañ ci delluwaat kat hôpital dafa amoon solo trop am na benn góor bu ma wax mu ne ma boo demee ci dëkk doom amoo fa doomi bàjjen amoo fa kan mu ne ma amoo fa maam mu ne ma gàttaral ngan gi du fa yàgg dëkk bi du neex ndax loo am kenn koo waxtaan ak koo xool mu mer ne daf maa kon euh, nañ dellu daal ci suñ diine dellu ci njàngale mag ñi euh, rafetal dëkk gi dëkkin wi te yàlla tax te xam ne dëkk ci jàmm moo gën dëkk ci bi bëggante moo gën leneen dafa am benn mag ca Dakar kilifa bu mag la xam naa turam waaye du ma ci jaam kilifa bu rëy la ci Sénégal mu ngi politique sax di laaj réew mi moo ma nettali ci làmmiñam mu ne moom dafa dëkkoon ci benn dëkk quartier ca Dakar bu ma tudd quartier ba am fa kër kër cosaan dëkk fa bokkam waaye nee li tax mu xëy jaay kër googa gàddaayee fa mooy koñ ba du ñëw jubawul dem xam ne moom mënta nekk ci koñ nit ña def ay parti dem dëkk ñëpp di ay mbokkam ak i dëkkanoom mënta farak ñii bàyyi ñee mu ne ma mu jaral ko mu jaay kër gi toxu moom njabootam ma ne ko wax nga dëgg ndax dëkk ci quartier bu jubóowul wala dëkk bu jubóowul jar na sax gàddaay uti dëkk dëkk bu jubóo nga dëkk fa ndax boo ko defut da ngay wéet maa nga bokk ci bé maa nga bokk ci jubóowu di gi ñàkk jubóo gi laa bëgg a wax te ñun bu ñu jubóowul waajur yi jubóowul mag ñi bu jubóowul ak ñun ñi fi nekk dafay bu emoon doon ñu sax day baax waaye ndaw yi xale yi ci suñ biir ñun rek la ñuy xool yooyu suñuy sëri sëriñ ñun la ñuy copier di photocopie di xool li ñuy def di jàng ci suñuy jëfin ak suñuy waxin dafay law ba ci suñuy njaboot bu xasee ba tàmbali ci dëkk dootu fa jóg kon dañ delloo si waat suñu xel ci mbokk gi ak mbokk ci pas-pas gi mbokk diine gi mbokk dëkkandoo gi dëkkaale gi ñu rafetal ko kóllëre yi ñu sàmm ko bëggante ngir la ku gane sa morom dimbale ko te yàlla tax kenn ku ci nekk dana yàlla defal ñu yéene la ko te yàlla tax buñ ko defee daal du tee kenn ku nekk am cëram te dëkk bi dina sell danaa leen danañ dëkk ci daal luñ song danañ ko daal lu ñu wut danañ ko am yàlla ñu yàlla defal loolu eh,